ñu fekk ci ko ci leneen la balle et dans son camp que les gens arrêtent de dire que les gens de Yewwi ñun dañoo violents le discours est musculé alors que xamuñu ku fayu ku tooñ xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam Sénégal il faut que cela cesse donc c'est ça c'est la énième appel ñi war a intervenir nañu intervenir dans les plus brefs le sinon si luñ ñu woolu ne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 waaye yëgaluñu ci coobarey boppam la waxe waaye mbir mi dénkuñu ko ko woon ci coobarey boppam biñ ko dégloo ba pare ñu ni ko léegi da nga nuy may diir bi nga xam ni ñun parti yi bokk biir Yewwi danañ waxtaan sunu biir ndax xam nañ ni bu fekkee ni danga nga noonu rek bàyyi mairie bi ñun yëg nañ ni su suñuy information nguur gi génne na xaalis bu takku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 tappale bu nekk ci ñoom ba bëgg a fokkarti mbir yi ci ñun téyal ñu ñun ba ñu waxtaan ba déggoo suñu biir beneen bi nag mooy dégg nañu yoo yaay ni Macky Sall nee na day ñëw Thiès def conseil des ministres décentralisé c'est le candidat qui vient pas le président de la République c'est le candidat Macky Sall qui vient à Thiès waaye nag dafa am loo xam ni da ko fàtte li mu fàtte mooy bërki démboo njaay jëloon na fi mburu boole kook soow mu forox ñu tuuri ñun waa Thiès kon tey ak leneen lu mu mënti xalaat di ko nas du jàll Thiès waa yi li ont tourné le bis si biir bis ñoo ngi ci at bi ko Thiès waa yi ne ñun ak yow jeex na te ku xam Thiès ci fulla ci fayda ci fit ak ci jom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 seetaan loolu ba mu am mu xëy ni da leen ni delloo da leen ni ndàmpaay loolu yëpp ñoom bu leen ko delloo nañ ko jël ndax ñoo ko moom waaye nañu xam ne ay tappale la beneen bi bu ñëwee nee na day relancer le sommet de fer waaye defe naa ne ku toog 12 ans defoo ko ba nga nekk à quelques mois de ton dernier mandat nga war a dem abale boo waxaatee waxaateeg ceesuwaay ni da nga taalaat raay bi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 c'est le terrain gardé de la coalition Yewwi Askan di sant ñëpp di gërëm ñëpp